modernisation gars yi ñu ngi koy adopté ci noonu sax comme ni ma ko waxee woon rek Ibrahima mbay a ngi fii toog hmm. sama laaj bu njëkk gi ma koy laaj mooy d'abord mu wax ñu lan mooy euh, design intérieur donc lu lu simple la mm-hmm. c'est de l'esthétique euh, moderne et fonctionnelle boo xamante ni dañ koy appliquer de nos jours dans nos salons que ce soit les salons ou bien les les ba si ay toilettes tu vois mm-hmm. d'œuvre léegi nag euh, comment faire mettre un mur de salon en valeur donc on peut mettre un mur de salon en valeur en y mettant peut-être ay euh, mhm. Mhm. comment peut mettre un mur de salon en valeur maanaam tey nga ñëw gis mur bi ñu def ko peinture ñu def ko kese bàyyi ko noonu tey jii boo duggusee yow en tant que maanaam euh, designer je peux dire koo xam ne day def ay décoration intérieure tey boo ñëwee tey jii pour mettre la en valeur euh, comment vous faites. oh c' est très simple. Mhm. d'habitude ñu bëri dañuy bëgg euh, di def ay revêtement seen biir salon pour donner plus de valeur au, au mur. a qui peuvent mettre aussi mettre des tableaux mhm. décoratifs wala peinture donc tu verras am na ñoo xam ne dañuy bëgg di di di euh, indi tendance en fait. si mhm. seen biir seen salon pour mu am benn esthétique bu gën a attrayante c'est-à-dire des combinaisons de couleurs qui mhm. peuvent être complémentaires wala voilà, euh, je sais pas des revêtements comme ça peut être en pierre ou bien euh, des la donc ce sont ces aspects là yoo xamante ne nit ñi dañ koy gën a bëgg développer seen biir intérieur pour avoir ce confort en fait. d'accord suñu demee suñu yemee ci salon bi ban genre couleur la ñuy gën di priser ban genre de couleur la la ñuy gën di jël di ko utiliser. donc euh, pour les couleurs les gens ils ont plus l'habitude euh, de prendre des couleurs qui sont chaudes. cest mhm. c'est-à-dire euh, ça va de jaune à orange de vert citron à jaune saturé jusqu'à orange coucher du soleil. waaw ouais, en fait euh, pourquoi le choix de ces couleurs loolu noonu pourquoi je, je je dis que je vais prendre le vert pour le mettre sur le mur peut-être dafa am euh, dara loo xamante ne genre da koy refléter après wala dafa am benn rôle boo xam ne da koy jouer parce que duñ tànn duñ tànn couleur noonu rek juste damaa dem vert rek juste pour faire du vert. dans la chambre ah, Ça, c'est un choix déjà. D'accord. C'est un choix et il y en a qui peuvent, ils, ils, prennent des couleurs qui sont, qui chaudes parce que da am ay euh, des reflets c'est-à-dire mun nga mun nga nekk si benn pièce boo xamante ne c'est pas trop éclairé mais suivant l'éclairage nu muy refléter si mur bi day indaat encore plus d'éclat à l'intérieur des mhm. dama ko doon wax sama début wax naa ne ñu si bëri euh, souvent dañuy gis ni ki bëri na lu ñuy sàggane li nga xamante ne mooy décoration intérieure wala décoration bi nga xamante ne dafay am ci mur te tout en sachant maanaam am na importance je peux le tey jii boo ñu doon wax njëriñ yoo xamante ne décoration murale la am na ko loo ñu si dénk. Euh, njëriñ bi si am mooy c'est déjà un traitement qu'on fait du mhm. mur. c'est-à-dire. Euh, njëriñam mun na mun na nekk si benn sens boo xamante ne c'est plus thermique wala voilà, mhm. acoustique quand tu dis thermique euh, c'est c'est c'est par rapport a la température à la température et acoustique c'est plus par rapport à à au son comme mun nga mhm. nekk ci benn quartier boo xamante ne c'est un peu bruyant mhm. yow da ngay def ce traitement de mur de telle sorte que mur bi mooy nekk barrage de telle sorte que bruit bi sa reste dehors et tu es chez toi mais ak benn calme en fait okay. quiétude et et voilà un genre euh, comme bu ñu ko defaree boo dugg see sa kër nga am benn calme tu à l'aise voilà, ok je vois ouais. bon daanaka décoration intérieure ça fait combien d'années yaa ngi ciy yëngu Euh, man personnellement euh, je suis architecte. Architecte oui. Et euh, je suis sorti juste récemment. Mmh. Donc j'ai pas eu à faire des vraiment des projets dessus. Mmh. D'accord. mais euh, jàng naa ko. Mhm. c'est-à-dire am naa ci ay euh, ay connaissances parce qu'on avait des modules directs qui euh, qui qui étaient juste basés sur ça. D'accord. Mhm. Vas-y. dañ ko xam d'habitude euh, sénégalais yi ñoom ban couleur lañ préféré pour les couleurs c'est plus euh, d'après li ma gis c'est plus de jaune ou bien le vert citron Ouais. vert ou vert salon bi wala ci xam nga tey je pense que couleur bi ñuy def ci chambre ak ci salon bi c'est c'est pas la même chose wala. Mm-hmm. c'est juste un choix. c'est un choix. Ah ñoo xamante ne ils peuvent appliquer les mêmes couleurs partout. d'accord et, et d'autres yoo xamante ne ils préfèrent avoir plusieurs couleurs. Mm. mais yow tey booy conseiller euh, borom kër loo koy conseil selon yow lan moo gën a euh, jekk ci saal wala ci néeg wala ci ci ci kër. si si je dirais plutôt le orange euh, coucher du soleil ou bien mm. un jaune bien saturé. d'accord d'accord coucher du soleil. dañu nekk en face de la mer. yooyu dañuy faral di gis euh, du ñu ciy def peinture mais yeneen lañ ciy gën a bëgg di def lan mooy gën a adéquat ak euh, kër yi nga xam ne dañu jàkkaarloog ak géej wala avec la nature et tout ça lan lañ ci mën a def lan mooy adéquat ak loolu. donc euh, pour kër yi nga xamante ne dañu jege torop géej donc ils sont trop exposés à l'érosion donc pour ce bâtiment yàqu c'est ah, c'est très facile. Mm-hmm. donc pour. pour que mur bi tenir tu es obligé de mettre benn matériau boo xamante ne si carrément adapté comme mun na nekk ay carreaux wala les matériaux les matériaux de ce genre ay carreaux wala céramique wala voilà. mais peinture baax aussi. peinture ça dépend des des des peintures foog nga am benn traitement de peinture boo xamante ne dina résister. Mm. par rapport à ça. donc bu ñu tëbee ci bu ñu jógee ci question murale bi dañuy ñëw ci li nga xamante ne mooy luminaire. Hmm. luminaire euh, mooy éclairage. daanaka on voit que maintenant c'est très prisé gars yi dañuy def ay plafond def ci ay éclairage et les euh, ban ban rôle la euh, luminaire di jouer ci biir. D'accord. Donc pour Luminaire, déjà, il faut mettre l'accent sur euh, les styles de construction qu'on a actuellement ici au Sénégal. Parce que dangay dugg si yenn kër yi yoo xamante ne c'est carrément sombre. Mm -hmm. à dire bu ñu am ay ouverture boo xamante ne c'est carrément nécessaire pour ab pour. pour, euh, pour capter le maximum mhm. d'éclairage. Mhm. Alors que éclairage dafa baax si confort visuel mmh. à l'intérieur d'une pièce. Mhm. Donc euh, pour revenir à, ta question, euh, l'éclairage c'est vraiment prix mondial Donc, il faut vraiment euh, y mettre l'accent. Mhm. donc du bëri da ngay gis ni tamit dañuy dañuy yendoo taal seen ay lamp seen biir kër parce que loolu rek moo koy indi. Mhm. le fait que seen seen kër amul. amul lumière amul lumière. est-ce que du ci tabax bi aussi parce que. des fois anam mi ngi koy tabaxee. dafay dafay tëju ba nga xamante ni lumière bi ni mu waxee dugg du dugg. loolu moo tax. est-ce que tey du euh, faute da mooy ki nga xamante ni moom mooy architecture bi wala. non am na si ñoo ñoo xamante ne dañuy duñu dem consulter sax architecte. d'accord c'est-à-dire dañuy dem gis benn génie benn ingénieur en génie civil de ce genre. mu ñëw defal leen proposition et après ils essaient de valider les plans et voilà ils commencent à construire alors que architecte bi lui c'est un spécialiste dans ce qu'il fait mm-hmm. donc il sait comment capter les vents il sait comment d'accord. capter la lumière nécessaire qui va avec tu vois d'accord ngeen di dessiner noonu di kii noonu loolu noonu yëpp da ngeen koy prendre en compte oui mm-hmm. il y a plein de détails à prendre en compte si biir bâtiment parce que tu te dis que tu vas vivre là-bas genre pendant un moment mhm. donc il faut nga am confort bu agréable que ce soit visuel que ce soit auditif tu vois tout ça c'est c'est à sànq Mélanie yaa ngi koy wax yaa ngi doon wax euh, avant c'est vrai que ñu bëree bëri bàyyi ñu woon xel trop si li nga xam te moom mooy décoration bi mhm. maanaam mbirum euh, design bi et tout ça mais léegi dañu gis ni que gars yi dañoo révolutionné yi fi bu baax a baax dañuy sax importer ay euh, ay bagages yu am solo yi nga xamante dañ koy def ci biir kër yi mhm. ak ay xeetu décoration yoo xamante ni macha allah ba ci plateau sax télé yi dañ koy gis ba ci biir kër yi ba ci biir li nga xamante moom mooy salon yi lan moo waxal changement de mentalité boobu noonu peut-être la modernité et que les gens ils veulent dañuy bëgg nekk si si dans les tendances mm. de ce qui se passe et mm-hmm. l'avoir chez soi mm. mais euh, man le conseil que je peux donner c'est plus euh, avoir un style qui fait plus sénégalais c'est-à-dire euh, tu peux prendre des les euh, les meubles et euh, les accessoires qui vont avec yoo xamante ne c'est typique Sénégal qui font local comme mun nga dem euh, marché artisanal où tu mhm. tu tu essaies de développer en fait l'économie de de ton pays ah oui. mais pas que tu vas aller carrément Importer. acheter un ah, truc qui qui s'adapte à un truc qui est classique occidental alors mm -hmm. que tu as tous les matos qui vont avec ici au Sénégal. D'accord. Si nous revenons par rapport à l'éclairage euh, par rapport au plafond ak yooyu ak combien de quel type de plafond on peut on peut constater parce que dañuy gis ay nit yoo xam dañuy def plafond bi comme genre tàppee na mu ngi ko doon défilé sànq ci image yi am na yoo xamante ne genre yee nii am na. Hmm. plafond yoo xam dañuy gis ñu def image def euh, ay lumière ci biir am yoo xam dañuy euh, teg euh, maanaam dañuy langal lampe yi ak hmm. yooyu noonu genre wax ñu ci daal ñu gën cee xam. Ah, loolu c'est déjà les faux plafonds. Hmm. yoo xamante ay luminaires. pour forme yi gën a génn ci kaw. Mhm. donc euh, da nga gis les tendances comme on le voit ici. ñu bëri dañ koy bëgg di ko utiliser parce que esthétique bi mu ngi ci à 100 pour cent. d'accord mhm. euh, lumière lumière l'éclairage l'éclairage en général euh, ban impact la am ci décoration intérieure. donc pour éclairage d'abord il faut signaler qu'il y a deux types d'éclairage mooy am na éclairage naturel. ak éclairage artificiel. Ah donc ce qu'on voit c'est de l'éclairage artificiel naturel mooy bii di ñëw par via le soleil. Mhm, mhm, mhm. donc euh, importance bu mu am c'est plus le confort visuel c'est doo nekk ci benn pièce boo xamante ne dafa carrément lëndëm loolu doo fa nekk à l'aise déjà donc tu es obligé d'avoir les deux. soit en plein jour, tu as l'éclairage naturel. Le soir, tu allumes tes lampes pour une meilleure vision de l'espace et de tout ce qui compose en fait cet D'accord. Pour l'éclairage euh, artificiel, comment vous faites le choix euh, Le choix, ça dépend. Hum. Comme tu peux avoir des couleurs qui font plus fluorescentes, d'autres qui font plus ensoleillées, ay, ay choix là. Avec. Ay choix la ouais. <laughs> question de choix la que, question, question de choix la ouais. maanaam aujourd'hui moi quand je dis que je veux quelque chose de plus discret de plus calme loo xamante ne su ma si dugg see rek man damay sentir sama bopp comme euh, lumière bi nekk ci biir avec le bruit avec tout mais quand j'entre chez moi je suis je veux être à l'aise maanaam damay toog mm-hmm. nekk. y a la paix quoi la paix intérieure tey jii je t'invite à venir chez moi ne la je veux ce genre de style nii comment tu vas faire. C'est simple. tu peux, tu peux intégrer juste le style qu'on a des, des, des, des, plafonds avec les luminaires où tu as mhm. peut-être, euh, comment on appelle, euh, des avajours. Après, c'est juste les couleurs que tu utilises, que ce soit ensoleillé ou florissant, pour donner plus de goût à l'intérieur. D'accord, on voit que pour euh, les murs, euh, genre, ceux qui font la décoration, les Yingis, parfois ils prennent des photos. Mmh. moom la ñuy jëlee tableau pour mettre pour euh, décorer l'intérieur il y en a qui font des qui carrément mm. dessinent le mur y en a qui font euh, genre euh, tout ça aussi ça fait partie du choix ou bien ça ça ça relate d'un conseil j'ai un spécialiste je demande conseil pour faire cela ou bien c'est le spécialiste qui vient dire ça ça se passe comme ça et ça et ça pour voir donc dans ce domaine là vaut mieux ngay dem déjà un spécialiste boo xamante ne dina la conseiller et il, il euh, comment on prend un, un, vrai décorateur intérieur qui est carrément différent peut-être de d'un architecte intérieur. donc ñooñu dañuy ñëw pour euh, pour rapport pour amener plus pour amener plus de de goût en fait. à ton mm-hmm. à l'espace. Mm-hmm. donc euh, Ça se euh, mhm. a une différence. Yeah, architecte yeah, intérieur, qu'est-ce qu'il fait hein moom déggul olof xanaa. mais xam nga rek ne <laughs> la ci olof gala waa ci olof gala waaw d'accord dañuy gën a góorgóorlu comme ci olof bi ah architecte intérieur ak euh, décoration intérieure déjà da ko fay jot a signaler si signaler déjà lan mooy cette différence entre ñaar yooyu noonu donc il a une grande différence entre les deux góorgóorlu ci olof bi Ibrahima. waaw ma mbay. mbay mbay ku la na ci làkk ko loolu wax la. dëgg yàlla. donc euh, architecte intérieur moom. lu muy intervenir carrément ci ci ci mur yi. c'est-à-dire comme bu ñu jëloon aspect bu ñu bu ñu bu woon sànq. mooy manque d'éclairage boobu noonu. kooku moom moo gën a am. cette aptitude à aller casser des murs. parce que moom dafa def ay études yoo xamante ni c'est plus technique. Mm-hmm. comparé à un décorateur intérieur boo xamante ni lui il maîtrise plus les couleurs des reflets. Mm-hmm. ak mm les objets qui composent carrément la pièce. Mm-hmm. d'accord aujourd'hui quand je fais euh, une couleur quand je prends une couleur su ma jëlee benn couleur tey ma ne tey euh, vert comme ni nga ko waxee orange laay jël pour def ko sama couleur muru toilette déjà léegi boo ko defee objet yi nga xamante ne da koy jënd pour décoration bi da koy jël ko Euh, ànd kook boole ko ak euh, orange pour ñu mën a kese ou bien ça n'a rien à après pour booy jëndee ay ay matériel ay meuble yi pour euh, décorer mais a génn daal daa jàpp mbir mi daal yëpp mais li ma bëggoon poser mooy mm. Ibrahima doguma la ñoom décoration yi ñuy def yi ñu xewal sax léegi di ko def mm-hmm. est-ce que du yàq marché wu jaaykatu tableau parce que la plupart dañ doon gis ci biir kër yi dañ ciy teg ay tableau yi tout ça mu mu gën a kii baax pour les décoration mais ak euh, système bu anam yu ah, bees yi ngeen ñëwee ci kër yi di def décoration murale ak tout ça mm-hmm. nekkoo leen di yàq marché wu euh, ak ñi ñi di di jënd tableau ñu ngi jënd tableau ba léegi mais fu ñu koy lonk bu ñu ko jënd <laughs> doon naa ñu koy lonk non mais je suis sérieuse nag c'est sérieux si mur lañ koy lonk et eh, gars yi xam ñu xam sensu <laughs> sensu tableau bu ñu <laughs> jënd tableau rek Fatima de bu fekkee ah, nga boo xamante ne nekk def benn mur boo xamante ne da nga ko déco décorer. mu am ay éléments ci kawam si benn côté bi nga bàyyi benn miir bu neutre si digg bi nga teg sa benn tableau. d'accord. simple après nga teg ci sa benn éclairage pour affaire bi gën a génn. mais sénégalais ñu ngi euh, continuer di ñu ngi ñu ngi xam yéen seen liggéey tu penses que ñu ngi koy euh, ñu ngi koy cons je veux dire. ñu ngi koy euh, du ñëppay dem consulter benn décorateur intérieur. Hmm. pour ñu bëri dañuy jëm dañuy dem jëndal seen bopp soit dañuy inspiré aussi ay magazines. Ah, ok ah sénégalais dañoo bëri inspiration dañoo bëri inspiration taf yëngal. dañu si bëri ay artistes. tey tey Ibrahima Mbaye. décoration day chambre day am. chambre xale day am. chambre marié. genre wala chambre étudiant ça dépend rek. Euh, tey yow bu dee euh, xam nga ñu par par exemple waaw chambre célibataire aussi. am na ñaaw xam nga <laughs> euh, tey bu ñu defee constat d'habitude peut-être société africaine wala sénégalaise. Mm-hmm. am ñu habitude boobu par exemple néegu xale yi pour la chambre des enfants genre duñ ci rey suñu bopp mm-hmm. tey te bu ñu waxee décoration xale yi aussi dafa am la nga xamante ne war na leen capter ci fa nga xamante ne fa la ñuy fanaan fa dañuy mm-hmm. nekk seen dëkkuwaay tout ça mm-hmm. euh, tey yow lan ngay wax parents ak aussi nga nga ñëw ci chambre célibataire yi ak chambre mariée yi <laughs> donc pour man loolu warul nekk benn complexe nga jël sa sa néeg def si waaw néegu xale surtout si si benn spiderman pas nga ne ni lii peut-être affaire tubaab la wala si ah, ah, mais c'est juste nga ngay ngay xoolee psychologie xale bi noo koy mën a développer suivant espace boo xamante ne fan la tàmm di nekk fan la tàmm di fowee mm-hmm. nga jox ko li <laughs> tey jii marié bi tey boo ko doon conseillé tey pour mu defar chambre bu mu ñëw rek jël peinture def du blanc sur du blanc toog. tey jii nag nga comme ça pour être yoo xamante ne c'est plus attrayant c'est-à-dire mettre l'éclairage jënd sa ay lal yoo xamante ne. Mhm. franchement am na style. voilà yokk si <laughs> yokk si sa ay objets yoo xamante ne va dans. l'ambiance de voilà quoi. waaw tout à l'heure je posais une question mais Fatima daanaka moo la dagg. mooy maanaam le choix des meubles par rapport à la peinture si est-ce que quand tu pars pour acheter les meubles maanaam booy dem pour jëndi meubles yi est-ce que. soit da nga koy da ngay jël meuble bi couleur meuble bi ak yooyu. par mhm. rapport ak peinture bi nga jot a def ou bien mhm. ça n'a rien à voir ak peinture bi nga def nga ne j'ai du vert dans chambre ça n'a rien à voir. loolu laa expliqué nii. loo xamante ne c'est forcé ni loolu nga war a mais foog nga am tamit ay couleurs yoo xamante ne mhm. ñoo ànd. mooy des couleurs qui sont complémentaires. c'est-à-dire mun nga jël benn jaune mûr. nga nga nga benn beige. wala tu vois parce que di nga xam ne ay couleurs yoo xamante ne ànd la. mais nga dem jëli peut-être je sais pas un mur qui est carrément rouge bu saf saf nga xam boo duggee si biir salle bi tu as vraiment mal aux yeux <laughs> donc tout ça c'est à tenir en compte quoi mooy nga jël ay couleurs yoo xamante ne c'est plus mhm. voilà léger yoo xamante ne c'est plus chaleureux mhm. nga combiner ko ak ay objets yoo xamante ne ànd na couleurs yi ànd na pour pièce bi gën a dund Mmh. d'accord l'architecture mën nañ wax di ici au Sénégal euh, est les jeunes ne sont pas encore dugaguñ ci bu baax a baax affaire mmh. architecture pas farataluñ ko daal parce que boo waxee peut-être dañ lay wax affaire du tubaab la comme on peut dire mais de plus en plus tamit mën nañ wax ni ki maintenant léegi jamono ngi changé parce que ñu gis ni ki jeunes yi ñu ngi gën dugg ci mouvance boobu noonu mmh. euh, tey ji yow lan moo lay inspiré tey ji ba nga dem ne naa non moi je vais être architecte d'accord donc pour mon choix de mes études déjà en architecture. Mhm. loolu dafa dama dama sentir sama bopp si biir déjà. parce que dama amoon base au dessin déjà. d'accord donc yooyu yooyu doon yëpp c'est juste des conseils yoo xamante ne ñu bëri dañ ma ko jox ne ma defal ay études boo xamante ne ça mhm. tourne autour de ça mhm. parce que tout ce qui touche la création m'a toujours plu. donc moo tax ma je suis carrément dans. le milieu là. Par rapport à la clientèle, vous avez plus euh, euh, des gens d'extérieur, des étrangers, voilà, ay sénégalais yi jëmu boppam ñoom ngay gis ni ki ñu ngi ciy gën di sóobu léegi maanaam euh, mbiru décoration intérieure gis nga ni léegi sénégalais ñu ngi ciy gën di soobu wala étranger yi daal ñoom ñoo ci gën a am pourcentage bi tey. comme sénégalais yi ñu ngi si ñu seen bopp. ñu ngi ciy sentir seen bopp da ngeen di jot ay yaay ay consultants. waaw ñu ngi ah ouais on peut dire ouais. Fatou <laughs> avec le catastrophe ndax mu ciy yëg ñu ngi ciy dugg de plus en plus. ñuy consulter mhm. léegi que ce soit les architectes ou bien mhm. les décorateurs intérieurs pour seen euh, salon quoi wala seen néegu doom wala seen néeg personnel. Mhm. mais comment ça se passe genre dañuy ñëw di rendez-vous wala dañuy tëb rek. fekk si benn Ibrahima rek ne ko lii laa bëgg rek toog Ibrahima yow nga ñëw rek indi say bagage rek toog def li ngay def. non dañuy consulter bu boo ñëwee après dañuy dem defi état des lieux su fekkee ne benn espace la boo xamante ni concevoir nañ ko ba pare. l'architecte d'intérieur day dem defi ay relevé pour prendre l'espace et après reproduire ça sur logiciel donc à partir de logiciel boobu mën na def vision wu 3D wu espace bi c'est-à-dire da koy reproduire de telle sorte mm-hmm. intact avec les matériaux nécessaires yoo xamante ne soxla na ko mu dem def ay recherche matériaux et il applique tout ça dans euh, la 3D pour am vision bi déjà wan ko client bi et à partir de là bu adopter affaire bi rek les choses sont. d'accord mais euh, vous vous avez fait cette formation contrairement ak ñeneen ñi nga xam ne dañ leen gis ci réew mi ñu ngi koy faral di di ko liggéey. Hmm. sans pour autant que ni jàng nañ ko wala euh, donc la rek boo xam ne ñoom am nañ ko. quelle est la différence entre yéen ñi def formation bi ak ñoom ñi nga xam ne defuñu ko ci wàllum euh, maanaam euh, longue durée bi nga xam ne war na ko mën a am ci kër. en fait création dafa xaw a sensible mooy mën nga gis koo xamante ne nekkul ci domaine bi hmm. mais lu muy mun na gën a rafet sax ki nga xamante ne daf ko jàng mm-hmm. donc yooyu yëpp mm-hmm. c'est cette aptitude à à avoir cette cette touche en fait de mm-hmm. de créer des choses qui sont vraiment qui sortent de l'ordinaire am na ñu am touche boobu sans pour autant ni jàng nañ benn école telle école pour génn def d'accord day mel ni moom par rapport ak dessin parce que on m'a soufflé que dessin rek la mën de mën nga toog nii sax mu dessiner la nga yaakaar ne yaa waaw da ngay yaakaar ne yow yaa ne ci biir papier bi <laughs> andi war nañu dessiner ñun ñuy toog fii ah, oh. <laughs> allah Mélanie mu nekk loo xamante ni jamono ji design wala boog décoration am na dayo bu am solo ci biir kër yi parce que gis nañ léegi wax dëgg yàlla am gars yi ñu ngi ciy def ay création yu am solo léegi sax dañuy jël alxuraan benn ayatul kursi yu def ko ci imprimer ko ci mbir mu doon lu am am solo loo baax waaye nag néegu célibataire bi moom buñ ci def benn décoration dañ ko bàyyi noonu mu wéet ndax ndax ñu am jom ndax ñu am jom mën a mën a génn dem dem sëy wala boog ñu amagu jabar daal di takk jabar célibataire yi tamit ah, yaa ngi tooñ Babacar ah déedéet <laughs> déedéet nag loolu Kéba yaa ngi leen di tooñ déedéet loolu ah, Kéba néegu célibataire ñu ko décoré si nim loolu gën a gaawee am jabar sax <laughs> ku ñëw gis nañ ne sa nekk am nga ah? c'est am célibataire day waa nag ñu ngi yaa ngi <laughs> na góorgóorlu. te ñu ngi yoon bi yi day waa seddaay sa dañuy taal xam nga ñooñu. waaw ñooñu ba pare buñ pour bouger célibataire yooyu noonu. donc Mélanie wax dëgg yàlla mu doon thème bu am am solo wax dëgg yàlla lu rafet dafa de dafay dundal xool déjà. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, visuel bi dafa neex a xool et puis je pense que gars yi ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax. thème bi amoon na solo melal ñu bàyyi la rek nga daal ci tàggatu waaw Konde bi amoon na solo comme ni nga ko waxee rek tey moom dañoo intéressé woon sax li nga xamante ne rek mooy décoration intérieure te xam naa beneen yoon yi te dinañ gën a ñëw maanaam waxtaan ci nga xamante ne le choix des meubles parce que lu neex lu rafet dafa mm. neex ci xol mm. day dundal xol voilà il faut baax na ci trop tamit ñii ñi di ci bàyyi xel parce que mbir mi du lekk ak naan rek mm-hmm, mm-hmm. quand tu as quand tu es allé boo nekkee tamit euh, am benn décoration bu xam nga day féexal sa xol loolu rek mën na génne stress mm-hmm. dañ koy bàyyi mu tàggatoo moom euh, Ibrahima. Euh, euh, je vous remercie ma invité. Mm-hmm. ci ci plateau bi ça a été un grand plaisir. mbay làkk olof waay mbay. mbay mbay làkk olof échanger ak yéen. Ah, olof de dala ah, man waa waa Dakar. waa Dakar oh. waa Dakar fii laa yoroo fii laa màggee. fi nga juddoo yoroo fi ah déedéet waaye foo jàngee ko yàq. ban euh, koñ j'ai fait plusieurs écoles ah. xëy na da nga yàgg da nga yàggoon Togo. Togo j'ai fait quatre ans là-bas. moo la yàq. Ah. Mm-hmm. d'accord en tout cas ça plaisir de ci plateau bi ni ko Awa Konde waxee rek mu nekk loo xamante ne vraiment c'est un plaisir parce que tamit c'est très encourageant di gis ay jeunes yi nga xamante ne rek maanaam ñu ngi sóobu ci yenn euh, yenn métiers yi di woo di def appel en même temps jeunes yi naan leen ñu bañ a toog xam nga benn yëngu ku ci ku ci am sa don am comme genre euh, Ibrahima l'exemple de Ibrahima rek moom mm-hmm. don la am rek mu gis ne pourquoi pas lii peut c'est que buñ ko jël rek di ko laxas di toog daal nañ hmm. dem gën ko explorer gën koo génnee de hmm. passage au euh, passage may nuyu waale kii di Tata Cécile Diouf hmm. naan ko un gros bisou moom suñu fans la di nuyu suñuy moment yëpp yi nga xamante ne dañuy yeewu suba teel toog duñu seetaan un gros coucou à Ndiaké mbay je te fais un gros bisou ma chérie Ndiaké Mbaye célibataire bu mag bi Ndiaké Mbaye moom mooy chéri célibataire yi gën chéri dañuy maraan ñun chéri Pape Gora moom dafa bari chéri dafa bëri ay jëkkër ci kër ma ma ma <laughs> mi ngi noonu Mélanie macha allah mu nekkoon design internet thème bu am solo te design sax dafa yaat décoration gis nañ léegi sax xew yi mariage yi gars yi nu ñu jëlee décoration te pourtant avant ne sax aman ñoo xamante ni seen mariage tombé lu ñu ak jamono boobu xëy na ñun ñoo ñun am chance boobu ak léegi sax baptême yi gis nañ gars yi dañ koy faratal ba xam naa di ñàkk incha allah di diñ si ñëw bu baax a baax donc euh, voilà tàppen mi ngi noonu bu baaxee rek dañuy daal jël li nga xamante ni moom mooy économie